salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal tey nag li may waaj a wax encore Sénégal toujours Sénégal chaque jour Sénégal yéen sénégalais yi mën ngeen a wax ni chaque jour rek yéen chaque jour rek ci lu bon lañ leen di dégg chaque jour rek tàyyi ngeen a def lu baax. xam nga yéen a fi nekk naan ay affaire poussière ak ay ngelaw ak ah, ak tàngoor gis nga Sénégal fi mu jëm kenn mënu koo xam Sénégal fi mu jëm jotagul dinaa leen wax dara lii xew Sénégal jamono ji mosu faa xew te gëj na faa xew. lii xew Sénégal jëfin yu ñaaw yi ak yu bon yii ak affaire yu metti yi ñëw Sénégal nii tabaski neexatul korite neexatul tamxarit neexatul amul benn feet bu neex senegal te man de ba may xale feet yooyu dañ ko doon waajal juróomi semaine ci balaa moo jot waaye léegi dara neexatul léegi lu ñëw rek day jàll ñu jël ko à la parce que neexatul te nit ñu waajaluñ ko xam nga lu waral loolu jëf ju bon ji ji nekkee jëf ju ñaaw ju ñu nekkee axiru zamal pire biñ naan mi mi ngi ñëw axiru zamal bi egsi na barke Serigne Bamba Xaadim Rasul ndax Sénégal suñ demee tey banaan dañuy léegi kenn ñemeetu ta wax ak kenn ci àddina léegi sa papa sax booy wax ak moom dangay xoolaat looy wax ak moom ndax doo ko ñemee audio doo ko ñemee wax woo téléphone ndax ragal nga sax mu enregistré la tàmm jikko ju bon di enregistré nit ñi di leen weer di def lu bon di def lu ñaaw tubaab bi moo sàq whatsapp te yooyu yëpp doo ko dégg mu koy def seen jikko ñaaw na seen jikko xaraam na soo leen demee bay jël setu Serigne tubaa Xaadimu Rasuul di tas ay audio di ko tas di ci wax lu ñaaw di ci bég ñii di ci kontaan ngeen xam ne Aklu Jobaal pire ñëw na barki Serigne Saliou Xaadimu Rasuul jël ay ay ay audio wu Serigne Modou Kara Mbàkke Noreyni di ko tas di ci bég ngeen xam ne Aklu Jobaal ñëw na ndax xam ngeen ni am na yenn yoo xam ni seytaane képp rek dong moo ko mën a def cim réew seytaane kese kese kese moo ko mën a def cim réew ndax du nit njaay nit njaay simplicité nit koo xam ne mat na sëkk du enregistré nit wala muy jël nit di tas ay oto nit bu mat sëkk moo tax seytaane dugg na leen te doo ci leen génn ba àdduna di tukki barki sëriñ Bamba Xaadimu Rasuul li ñu war mooy di julli di ñaan yàlla rek mu jéggal ñu te defal ñu ndam ndax xam naa ne Sénégal fi mu jëm kenn xamatu ko ci mim réew yàqu na te dootul baax kenn ñemeetut a wax ak kenn kenn ñemeetut a vocal kenn kenn ñemeetut a woo kenn koy dem di waxal sa nitu dëgg sax sa nitu pire bi nga xam ne yow moom xale la ba ndaw ba mag ñemeetoo koo woo wala nga koy wax sa soxla ndax yaa ngi xalaat ëllëg mu génnee say audio wala mu lay enregistré. c'est dommage yàlla ñu yàlla yàlla ñu yàlla jàppale lii ñaaw na oh!